internet di 313 digital ñu leen nuyu baax ñu am mbégte dellusi ak yéen ci seen xibaaru diggu bëccëg yi bokk na ci li ci euh, gën a euh, fës kon na dañu koy rek doore ak li xewoon fële ca diwaanu ci gi Coor euh, moom Ousmane Sonko nag ni ki démb génn na def entretien bu mag a mag fële ca wàll fajiri dellusi na. ci ay euh, détails yu bare bari danañu ci ñëw ci biir yi la xibaar lay doon Alioune Tine euh, bokk ci Africa Jom Center moom nag sol na dàllam xamle na ni la xalifa général des Mourides Serigne Mountakha ba Bassir recevoir na ko te euh, xamle na ni dina kon intervenir ngir rek jàmm ak dal mën a dellu si bu baax a baax ci réewum Sénégal ki nga xam ni moom mooy. maam yi euh, Pape Keita di gone ga ñu boomoon na fële ca diwaanu Ziguinchor moom nag mer na ba futtu am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci moom ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome danañu ci ñëw itam ci biir yile xibaar lay doon bu ñu ca noppee ñu wax ci. Euh, tàggat yaram suñu gaynde u yi nga xam ne ni ki démb déggati nañu daali euh, maanaam gaynde Njaay mbara wàcc ca coupe ba nga xam ni euh, yëkkati nañu ko mu doon juróomeelu coupe boo xam ni euh, Sénégal teg na ci loxo ci atuku ren ji danañu ci ñëw mbër yi di ñi nga xam ni ñu siq lamb gannaaw seen audience bu ñu amoon fële ca palais de la république tey nag doon nañ def seen jan ak taskatu xibaar doon ci indi ay leer lii moom moo gën a fës ci bopp yi la xibaar nees kiis ñu faram fàcc comme nañu leen ko junjee ci bopp yi xibaar manifestation yi amoon fële ci diwaanu ci Ziguinchor moom euh, Pape euh, Keita di gone gañu boomoon fële euh, te ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome mu bindoonu communiqué doon na xam leen ni kon na googele gone arme blanche moom moo ko daal di faat maam ja nag gannaaw ba papa ja génnee yëkkati kàddu gone ga nag maamam génn na daal di mer ba futtu xam le ni moom ministre de l'intérieur Antoine Félix jomm la mu wax dara du ca te sax ma ngay sàkku na mu binde woon communiqué wax ni googelee gone la ko faat nekkul leen lu arme balance da bindaat communiqué boo xam ni dafay weddi boppam ba mu set wecc wecc wecc wecc ndax loole mu defoon kon euh, nekk na loo xam ni dara du ci euh, dëgg ba tax maam ja kon euh, mbir ya metti na ko lool lool ba mu génn yëkkati ay waaram jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Antoine Félix Diome teg ca nag di sàkku sëtam googi noonu la di Papa Keita ñu daal di amal yoon bu ko defee la ca am yëpp ñu daal di koy leeral ci anam ga mu gën a leere naññi démb Ousmane Sonko génn na def entretien fële ca faj fajiri gannaaw ay fan yoo xam ni ma nga woon fële ca diwaanu ah, ci gi coor moom Ousmane Sonko nag la ko waraloon mooy ah, benn campagne de désobéissance civile boo xam ni amee woon na ko ah, ci diggam ak ñii di waa yoon procès bi doxoon ci diggam aji Adji Sarr dafa lankoon ni du ca wuyu ji ba tax toogoon ni fan yoo xam ni dafa rek toog ca këram Ousmane Sonko nag génn na indi ay leeral ci li waral loola moom Ousmane Sonko nag la mu ca xamle mooy yoon gi nga xam ni dafa ko yàgg jël li nga xam ni mooy ay injustice di ko teg ci kawam du yoon googu noonu lay wuyu ci jamono gii nii moom Ousmane Sonko ma ngay xamle ni yoon googu tey su bëggee mu wuyu ko ndax li nga xam ni dund nañu ko ci jamono yi jàll fii ci Sénégal bëggul ñu dundaat ko ci jamono yi ñu jëm maanaam marde gi nga xam ni moom la ñu boobu le procès ba tax nag su bëggee yoon googu wuyu ko dañu koy tegal ay garantie yu wér kéng que ni euh, moom Ousmane Sonko bu jugee di wuyi duñu ko indil benn tolof tolof wala benn jafe-jafe ci yoon bi waaye itam duñu ko tànnal fa nga xam ni fa la war a jaar loolee su amee moom Ousmane Sonko la mu ca xamle mooy saa bu xëyee dina dagg bi yëpp avion jugee ci Ziguinchor wutali foofu la ca Ndakaaru moom Ousmane Sonko nag ba tey ci boobele entretien moom ma ngay xamle ni kon l'institution judiciaire bi dafa war a nekk ci service su askan bi waaye warul ñu di ko utiliser ci ndigaluk ñenn ñoo xam ni kon nañu tuutee tuuti la ne ci eh, réew mi ba tax moom Ousmane Sonko mu xam le ni bu fekkente ni yoon googu noonu leen dafa kon daal di jaar na mu war a jaar moom Ousmane Sonko amul lenn lu muy tiit wala lu muy ragal ngir dem euh, wuyi ji ndax euh, la mu ca xamle mooy euh, contumace ba ñu waxoon ca yoon gépaas ni dañ ko ca jugé moom nee na ñu jugé la ci anam googu noonu tekkiwul ni danga nekk coupable moom Ousmane Sonko moom moo xamle lu ni mel ba tax sax xam na ni moom boobule procès moom moo ëpp lu mu cay gañe ci bu demee wuyi ji ndax mi nga bépp preuve bu leer nañ ndel que ni moom mi leen di aji Raby Sarr nekkoon ex masseuse ci salon bu ñu duppee suite boti li mu wax Euh, dara dara du ca dëgg kon moom Ousmane Sonko euh, képp kuy bëgg mu wuy ji moom moo la ko gën a bëgg waaye nag am na ci ay conditions yoo xam ni moom euh, moonu ca dem di wuy ji ci yoon goo xamante ni si ni dafa am noo xam ni rek noonu la tëddee ba tax sax ma ngay dalal xelu ñi nga xam ni ñoom ñoo di ay tàngam bu ñu tëddee nañu nelaw ba yandoor ndax moom xamle na ni kon li nga xam ni moom mooy dossier bi Adji Raby la muy wax ci épreuve yoo xam ni yore na ko nee na ay militant muñ ca dinañu nelaw ba yandoor ndax amul benn vidéo wala audio boo xam ni am nañ ko ci moom buy firndeel ni moom dafa siif wala mu sàkku ah, gone googu di Adji Raby Sarr ndax ah, la ñu ko cay waxal dara amu ci moom Ousmane Sonko moom moo yëkkati ah, kàddu yi ni mel ba tax sax ma ngay xam le ni ñoom ñi nga xam ni tey seen génération amuñu genn loo xam ni lu war a firndeel la ñu war a mën a wor askan maanaam confiance gi nga xam ni jamono ji askanu Sénégal amee nañ ko ci moom kon Ousmane Sonko leer na nañ ci wàllu googi noo ni le nga xam ni sax Euh, dikk na ci wàlloo ko xeet ak waaso yi nga xam ni ñu ngi koy joobaa jonge jamono gi Ousmane Sonko nag la mu ci xamle mooy fii ci Ndakaaru gone yi nga xam ni ñi nga ko doon euh, xeexal euh, ci jamonoy mars ak ba ci jamono yi ñu weesu amu ci genn gone goo xam ni Ziguinchor nga dëkkee wala Casamance kon moom Ousmane Sonko Ousmane Sonko ma Sénégal la waaye kàddu yooyu nag ku koy yëkkati itam na nga ko delloo fa nga jóge woon parce que Sénégal yooyu le moom Serigne euh, Mountakha Mbacké Al Bachir jaarele ko ci kaddu ki nga xam ni moom mooy Alioune gannaaw ba mu ko dalalee moom Alioune nag ma ngay xam ni dem nañu sàkku ci xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ngir mu daal di intervenir ci anam ga mu gën a gaawee ngir li nga xam ni moom mooy jàmm ak euh, dal daa di euh, am moom Serigne euh, Mountakha nag fi mu ne nii ña ngay xaar ci moom mu sàkku ci njiital réew mi mu daal di libéré ñi nga xam ne ñoom ñooy les détenus politiques waaye itam li nga xam ni moom moo mën a jur yee itam fitna ci réew mi muy jéem a jéem a arrêté wala jéem a kon écarte bépp kandidaa boo xam ni mën nga bokk ci élection présidentielle yi am njorti ni mën nga ko gañee loolee yëpp mu daal di koy Euh, teg ci euh, suuf euh, mi ngi noonu moom Ousmane Sonko nag ñi nga xam ni jot nañu ñàkk seen bakkan ci yooyu la manifestation ak ña jota yeesu moom fàttali na ni ña nga ca tànk ya te bàyyiwuñu leen benn yoon te mbir ma danañu ko yóbbu ba fa mbaxana doone benn maanaam fa nga xam ni sax moom mooy yi dàquñu ba yóbbu fa mbir mu ni mel Tahirou Sarr njiital mouvement si jël li moom moom nag ni kii démb daal di nay dikk eh, ci kàddu wala kon ci génn taskatu génn ko Pape Djibril Fall di waay politique jaanoo euh, gam doon ñëw ak taskatu xibaar yi am kàddu yu mu ci yëkkati moom nag euh, Tahirou saar euh, na mu ko tontoo am na ci ñoo xam ni ña nga doon sàkku ngir mu gën ko rafetal ndax la mu ci xam ne rek mooy Pape Djibril Fall daal homme politique la boo xam ne dafay tiit di fenn loole nag ñenn jàpp nañu ni xëy na waru ko tontoon mais kii di Tahirou Sarr moom nag xam le ne ni suñu làkk wolof kon moom moo bindoo noonu te am na sax moo yu gën a diis yoo xam ni mënoon na ko utiliser kon li mu wax amul lenn lu mu ci euh, rectifier wala lu mu ci euh, defaraat ndax euh, noone la suñu làkk bindoo te itam noone rek la ñu ko daal di waxee bu ñu ca noppee itam ñu daal di kon wax ci leneen ak les détenus politiques ku ci mel ne basiiru Diomaye Faye ak ki nga xam ni moom mooy Hannibal Djim nag gànnaaw ba ñu leen dégloo fond ba noppi ñii di ay avocats déposé nañ li ñuy duppee liberté provisoire waaye nag dañu ko lànk ba tëdd ca naaj bu ñu sukkandikoo ci seen avocat bi di maître Moussa Sarr bu ma ngay xam ne ni nekkul ni juge ñoom ñoo bañ mais c'est le parquet ci boppam ñoom ñoo daal di opposé wu lànk kandaare ni boobalee liberté provisoire duñu ko nangul ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, kii di ki Bassirou Diomaye fay ak ki nga xam ni moom mooy euh, Hannibal Djim bu ñu ca euh, jugee ñu àddu wax ci leneen ak mbër yi nga xam ni lutteurs yi nga xam ni sànq génnoon nañ di def ak seen. janoo ko taskatu xibaar yi ndax la ko waral nag mooy dañu leen recevoir woon fële ca palais présidentiel loole nag juróon coow bare bëree ci yenn ci ay koppar yoo xam ne jot na fa ruusandi ñoom lutteurs yi nag ñenn ci askan bi njort ni dañu demoon ngir soutenir ki nga xam ni moom moo di njiitu réew di président Macky Sall ci anam gi nga xam ne askan bi jamono ji soxla nañu ñoo xam ni dañu leen dañ leen di jàppal ndax ñoom la ñuy jàpp rek mooy ñoom mbër yooyu noonu lañ tey lu ñu mel askan wu Sénégal wala ñu ëpp ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe jamono ji ñoom ñoo tax ñu mel ko kon tey euh, waruñu bàyyi ginnaaw ndaw ñi di dem di jàppale yoo xam ne ñoom jàpp nañu ni euh, kii di njiitu doom yi dafa leen a euh, seetaan sàggante leen ñoom nag seen gënub tay bi ñoom da ngay xam le ni la demoon wuti fa lu soxal làmb la ak euh, loo xam ni dafay jariñ làmb ndax ñoom sax nàmm ay la yoon seen euh, wàll wéy na ba noppi waaye seen rakk yi nga xam ni ñu ngi ci yoon di ñëw ñooñee la ñu taxawal ngir xeexal leen ba tax kon ñoom euh, pare nañu euh, bu ñu sukkandikoo kenn ci ñoom di Balla Gaye numéro 2 moom a ngay xam leen ni kon ay sénégalais lañ te itam ay citoyens lañ yoo xamante ni si ni am nañu droit euh, far fu leen neex te lii ñoom ñi def keroog wuy ji ba ñi nga xam ñoom ñi ëxlu làmb nekkul sax mbër kese waaye ñii di waa ëhlu làmb ñoom ñoo demoon wuy ji kon eh, jàpp nañ ni ñoom seen wuyu ba lu yelloon la te bu ñu fa déggoon génn kàddu goo xam ni eh, guddemewul noonu la ñoom du ñu ca dellu tey nag eh, bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey ci mbëy yi moom mi la di Modou Xarañ Lo moom mu ngay xam ne ni pare nañu ba ci Boy Niang numéro 2 pare nañu te itam noppi nañu ngir jàppale ki nga xam ni moom moo di président Macky Sall te sax la ñu ca teg mooy ñoom nguur yàlla moom moo koy joxe kon ñoom amuñu di xeex képp koo xam ni wala di kontar képp koo xam ni yaa ngi ci nguur jamono ji ku fi nekk daal yore nguur gi ñoom pare nañu pour jàppale ba tax la ñu ca xam ne mooy fas yéene nañu kon topp ci ginnaaw kii di président Macky Sall jàppale ko ci ayam gi nga xam ni ngir mu daal kon tabax Sénégal gi nga xam ni euh, moom la nit yi euh, bëgg ba tey ci tàggat yaram ak euh, Sénégal U17 nit yi démb nag gone ya déggati nañu daali gaynde Njaay Mbara wàcc jaar nañu ca tànk seen i mag yewoon gannaaw Sadio Mané ak ñamu ca àndal Lamine Camara ñeneen ak waa Beach Soccer ñoom gaynde U17 yi daal di nañu dem ca compétition ba daal di duma Euh, seen moroom seen naataango yoo fa nekk yëpp 6 match 6 victoire mu doon parcours bu parfait boo xam ni gaynde ya démb euh, nañu daal di yuuxu jubile ndax euh, jaar na ko mu doon cinquième trophée maanaam année bi daal bépp coupe boo xam ni ñii di waa CAF teg nañu ko ci table ji rek Sénégal nee na ca runkum teg ca loxo Sénégal nag daal di bind histoire ci taarixu footballu Afrique ba faw ndax bokk na ci équipe bi nga xam ni moom moo njëkk dajale jël coupe yi nga xam ni kaaf teg na ko euh, ci table ji lépp ba tax euh, kon euh, ñenn ci way politique yi ñu ngi leen di félicité bu baax a baax yooyu lee gaynde di leen wax itam ñu gën a xuus moom Amara Diouf bi nga xam ni coow bari woon na moom ci lool ci wàllu ko atam jël na li nga xam ni moom mooy meilleur buteur ba moom itam gardien ba jël li ñu dippee meilleur gardien mi ngi noonu gaynde Njaay Mbara wàcc ñu ñaanal leen ñu continuer ci même lancé boobu noonu yemook fi ñuy daaneel yi xibaar di leen jox dikk daje ba ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar laata luy leen di abonné di bës itam ci cloche de notification bi ndax ngeen mën a continuer di jot suñu ay programme jërë ngeen jëf